asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masawu ci li nga xam ne eh, taw bi def na ko ci dëkk bi di Touba mbokk yi xanaa di ci sant borom bi subhaanahu wa rek moom mi nga xamante ni bii kenn ku mën a taw ku dut moom amul mbokk yi màggal nañ Touba ci jàng alxuraan ak xasida ak def salaatu ala nabi ak bernde sant ci borom bi subhaanahu wa sant la ko sëñ dundal nañ guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Sénégal gépp jàng alquran ak bernde salaatu ala nabi mbokk yi waaye gis ngeen ne nawet bii lu toll ci weer am na ci tool yu bari yoo xamante ne bii ndox wàccu fa ba àgg ci gàncax gi àggoon ci di yàqu te mbokk yi day ndox moom nit mën naa joxe aw jiw joxe engrais joxe suuf joxe ay tracteur waaye taw yàlla rek ko man mbokk yi yàlla wàcce ndoxum jàmm te yàlla dara du bàyyi ko ci moom jëm si ci ay jaam ngir yàq defar rek lay doon moo xam nga xam ko wala nga ñàkk koo xam moo tax taw bi ëpp naa njàmbat sant ci yàlla rek lay doon ak ñaan ko te bokk yi marchandise mu yàqu moo gën bakkan bu dem ñi ngi ndokkeel nag ñi nga xamante ne bi ñëpp ñàkk nañ ci seeni marchandise waaye bokk yi ñoo xam ne inondation bi ma nga tàmbalee ci kër sëñ tubaak ak boppam bi jaar ci jumaam bi mag ji nga xamante ne bi ku ne gis na ni mel mbokk yi ndox mi dugg na kër sëriñ Modou Moustapha mbokk yi ndox mi dugg na kër sëriñ Saliou mbokk yi ndox mi dugg na ci ay ay palaasu liggéeyukaay yàq fa lu bari ba àgg ci kër yu daa wuttaa sax mbokk yi ndox mi nangu na leen ku mel ne kër sëñ am Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdou Lahad gis ngeen keesam yi ba àgg sax yoonu Gede yëg naa ne kër sëñ Bas mi nga xam ne mooy porte-parole bi kees gu njëkk gi ndox mi nangu na ko ak kër magam yooyu mu dendal yépp ak yeneen i këri taalibe yoo xam ne ndox mi nangu na ko kon lii dañuy jàpp ne lu yàlla wàcc rek la mbokk yi lu tàmbalee taw une heure ci de matin ba onze heures ci bëccëg loolu ndox la moo xam ne musta wàcc Tuuba waaye ñu sant ci yàlla nag te ñaanaat ko sun borom subhanahu wa taala mu defal ñu ci xéewal gu ànd ak sutura yaakaar naa ne sant moo gën jàmbat wasalaamaaleykum wa rahmatullah